ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yent bi sant Serigne Touba sant waa kër Cheikh Issa Diène bi may féete sant naa yàlla bu baax wér naa pelek kuma doon raw daw sooy boo nga ñëw yàlla suturaal na ma ñibbisi naa ci sama kër fekkente ne nag maanaam nit ki dafa aajowoo ndimbal te nga xam ne yàlla rek moo tax ku ma ma jël waaw ndax yéen moom gis ngeen kër gi ni kon nag bu fekkente ne nit am na ndimbal te yàlla tax su ma mënee dimbali te yàlla tax na ma yàlla na ma dimbali te yàlla tax yittewoo naa ko moom lu ma yittewoo la ndax man ci jëmmi boppam néew naa doole lool lu may wax it yàlla rek tax may wax kër gi moom gis ni koo gis xam ni borom kër gi moom aji néew doole la yàlla la mu dogal nag yàlla yàlla dogal ngay loole ci as wéridi wéridi gi nag ci sant yàlla suñ jàngoro yi nga xamante yore nañ ko te mënuñu woon a faj bi biñ nekkee foofu suñ borom dimbali ñu fajal nañ ñu ko kon noo ngi leen di sant ñoo ngi sant docteur Sylla ak ñi nga xamante ñoom la ñoo koy liggéey ñëpp sant ñëpp gërëm ñi ñëpp taxawu nañ ñu taxaw bu rafet yéen ñii fi ñëwit indi seen dimbal lii sëñ Tuubaa mi nga xam ne ni moo yokk yàlla na leen yokk dolli seen i xéewal dolli leen a wéral wéral seen jabar lii moom ne leen ci dégg rek doy mbaa mu ëpp leen ci sax bu leen ci xam dara yàlla na leen ump lii ngeen yem ci dëkk bi rek daaru marnaan gi man dem ma Ndakaaru du ma fenn dëkk suñu tubaab yi génn ma ko daaru marnaan gi fañ ma faje ñi ma nekk leen fi faje te xam naa ni boobaag léegi ñoo ngi sant yàlla ndax xam naa marnaan tubaab gi moom kaaw bi gën xam nga lu tax tiituma damaa xam doomu aadama bi juddit bi lu ko dal rek suñ borom ak ko teg te da ngay ànd moom ci lool rek yëf yi yomb boo ànd ak moom ci lool rek paj mi yomb wér gi yomb ndax man sentiruma ko ci sama yaram dama leen di wax ne maam yéen moom yéen a xam ni tax li mu doon mais ñun sentirum ko ci suñu yaram ndax feebar doo lekk doon naan te man damay lekk damay naan kaar tubaari kàlla ci biir feebar bi parce que loolu la ñu doon digal it sa boole si nag di lekk tey naan ndox mbari tey dalal seen xel mm-hmm. man leen loolu lépp yàlla dimbali dalal xel gi moom suñu borom fekk na man maa ngi woon ci loolu. Mm-hmm. li doon sama jël benn jaaxle daal mooy bi xëye ne ma rab fee ni sama kër rab loolu moom kuñ xëy xëy def la ko te musoo gis moom saa yu sama ji xel dana jaaxal mais bu dul loolu sant yàlla rek. kër gi ne waa kër yi dañ leen di quarantaine sama soxna mooy li mu la wax léegi indi nañ ko fi saaku ceeb indi nañ ko fi diw indi nañ ko fi kii eh, saabu ay saabu madaar ak or savel yooyu maam ak ndox sachet ndox yi indi nañ ko ko fi bi ma ñëwee ndax boobu fële déedéet ndax bi ma nekkee fële moom chaque jour damay woote chaque damay woote bu ci woo ci guddi toujours damay woote di dalal seen xel ñoom aussi nii leen nun noo ngi jàmm lii problème mooy fi nekk te gisuñu leen rek waaye nun noo ngi ci jàmm feex leen nekk ci jàmm bu ngeen ñëwee bu ñu lu ñu leen laaj lu ngeen soxla laaj leen ñu jox leen ko bu ñu leen ko mënee jox maanaam mbir mi noonu la dem noonu noo sant yàlla bu maanaam loolu daal lañ ko fi jox waaye ab xaalis moom gisu mi ngi door teg sa loxo sëñ Moustapha mii daal moo teg gon lii sama loxo waaw man ba ma génneeg léegi moom maa ngi di maa ngi door a gis kii maa ngi door a gis ku ma ni sañ bi na def ci lii danañ ma woo téléphone nag moom danañ ma woo téléphone di ma laaj ak nu ma dundee sama sama waa kër bi ma génnee bi ma ñëwee sama waa kër nu ma nu ma def ak ñoom man xanaa sant yàlla ñëpp bég sama yenn dëkkandoo yi ñu ci bari bég waaw ndax dañ ne li fi lii waaye man li ma gën a sant yàlla mooy man miñ ni damaa yëf yi dafa maa daal bañ yéen ma yóbbu quarantaine sama kër ñu leen daw suñ borom si li ma gën a tuturaale mooy tey bu fi benn kaa amoon man kon sama neex. waaye gis nga rek yàlla ak i mbiram am na ñoo xam ne dañ leen buntu kër gi bu leen seen xale buntu kër gi bu leen fi jaar waaye boobu man maa ngi hôpital sox sa ni ma ne fii ma ne loolu du dara nit ki moom fi nga koy xamee mooy fi nga tëlee mais bu jàmmee amee kay ñëpp benn lañ dool nii am na ñu doon ni seen xale bu ñu fi jaar démb ñoo ma jóg xëy si xam ne ëddul dara ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jóg xëy si ni ma sëñ bi na yaram yi def nanga def sant man de maa ngi sant yàlla bu baax fii moom boo fi ñëwee moom jërul ngay laaj sax ndax kii soxla ndimbal wala soxla wu ndimbal su fekkonte ne nit ki dafa yor kàttan di liggéey sax nga xool xam ne kër gi boo gisee da xam ne kii njaaroon ndimal war a jëloon ndimbal waaw lu ma waay dimbalee nag moo jël